saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay Bonjour, c'est Madame Ndiaye, Mame Fatou Diop, chef de service de depuis l'inauguration de la banque de sang de Foseni en 2005 par son Excellence le Président de la République, Ablaïwa, Wade, que Dieu lui donne longue vie, la banque de sang de l'hôpital Matleboul Foseni a l'habitude de célébrer la journée mondiale des donneurs de sang. Aujourd'hui, on est à notre 18e édition. comme toutes les banques de sang, on fait des séries de collectes et des dons fixes. Mais, machallah, grâce à la bénédiction de mon vénéré Marabout Serine Salou, paix à son âme, la banque de sang a souvent des stocks disponibles de sang au niveau des dairies et au niveau des écoles surtout bien sûr, on a actuellement, on est presque à moins, un peu moins de 200 poches. Il reste les 6 poches là. Et on espère que d'ici 15 heures, on aura les, plus de 200 poches de sang. Au départ, c'était 200. Et du sang n'est pas chose facile, honnêtement. Mais comme je vous l'ai dit, grâce à la bénédiction de mon mari, Sering Salupé, à son âme, la banque de sang de Touba est la deuxième banque de sang du Sénégal, après le Centre national de transfusion sanguine. Vous savez que les normes de l'OS, c'est 10 dons pour 1000 habitants. Si on prend la population de Touba comme étant 800 000 personnes, on devait avoir 8 000 dons. Actuellement, nous, on est à 9 500 dons et cette année, on sera à 10 000. Donc, nous, l'objectif de l'OMS a été atteint par la Banque de sang de Remercier toutes les bonnes volontés, surtout les DAER, les associations, Touba, Tchakanam, les wilayas, les Waïdaoulou, surtout les élèves et le district sanitaire de Touba qui ne ménage aucun effort pour nous appuyer tout le temps, le centre de santé de Baké de Ndamatou, l'hôpital Cheikhoul Khadim qui vient chercher aussi du sang à Fauzéni. on remercie notre directeur et, son staff parce que vraiment à chaque fois on a une réussite totale la journée parce qu'il ne ménagent aucun effort pour nous appuyer en matériel aussi bien logistique euh, que, que humain pour pouvoir réussir cette journée. Donc nous remercions toutes les talibés mourides pour leur dévouement à la tâche de ce don de sang parce que c'est la deuxième banque de sang du Sénégal. Et nous remercions aussi l'Andobès parce que sans l'Andobès, la banque de sang n'aurait pas dû fonctionner correctement. Mais vous voyez aujourd'hui, l'association, il y a des dames, il y a une dame aujourd'hui même qui fait, qui fait partie des diplômés aujourd'hui, qui a plus de 12 ans, elle fait partie de l'association. Donc nous remercions tous ceux qui viennent donner de leur sang pour sauver C'est un geste noble qu'on salue tout le temps. Merci à tout le monde. maa ngi ñaanal sëñ Mountakha yàlla may ko mu yeggale ay naalam di sant sama sëriñ bi sëñ Cheikhoum sëriñ Saliou banque de sang Matlabul Fawzeyni ñu ngi ko ubbi en 2005 par Abdoulaye Wade président yal na yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te boobu ba léegi chaque année journée mondiale don de sang dañ koy fêté ren nag mu tombé waat ñu koy fêté ak ANDOBES mooy association nationale donneur yi bu section Touba nga xam ne commencement bi ba tey dañ ciy jàpp. ci suba ba léegi ñu ngi fi ni ñaa ngi maye léegi ñu yegg 200 poches te moom lay moo doon suñu objectif. waaw comme banque de sang yëpp rek butum deret xaw na jafe waaye yàlla def na ne ñun ñaanu ku tedd ka sëñ Saliou sama sang ba yàlla nañ ko yàlla fayal moo nekk ak ñun ndax dañ ko seeti woon de mu ne man de Mbàkke su ma ko mënoon maa ciy jiitu. mënuma nag joxe ndigal ndax yàq bi day ëpp def bi waaye fu ngeen dem rek sama ñaan a ngeeg yéen moo tax banque de sang Fawzeyni juddu ñu am rek 2005 ñun ñooy deuxième banque de sang du Sénégal loolu ñaanu wàllu bi moo ko waral ñi ngi débrouiller nag ñi ngi faj malaat yi te du ñun rek la ñuy jox ñun dañuy jox waa jéemu dañ fay jël si Ndaamaatu Mbàkke Cheikhul Khadim Diourbel donc ñi ngi ñi ngi góorgóorlu daal ci liggéey bi waaw nit ñi daal lañ ci jàpp daayira yaa ngi ci jàpp association yaa ngi ci jàpp waa wilaya dañ ciy jàpp waa élèves yi surtout dañ ciy jàpp waa Touba ca kanam dañ ciy jàpp ñëpp a ngi maye daal association ñi ngi ñuy woo ñuy def ay collecte yu xam ne bu bokkul ak bés bi am na tamit ñuy ñëw yenn saay bu xawee yenn groupe yu raay di mayel seen mbokk yi biir hôpital foofu par jour nañ fa am 40 ba 45 ñuy maye si par bés altent nañ ko parce que OMS dafa ni boo jëlee junni nit fukk yi dañoo war di maye deret pour mu nekk donc boo jëlee 800 000 population Touba 8000 dons la ñu war a am daaw am nañu 9000 et quelques dons te ren dinañ yegg 10000 dons incha allah parce que at bi diggagul te léegi ñu yegg 4000 dons parce que bi xanaa sant leen rek sant rek sant rek sant ñëpp di ñaanal xalif général de mourides mu yàgg fi teew di ñaanal sama sang bu sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Saliou Mbacke yàlla guddal fanam te bàyyi ko mu sut waajuram ba fan di remercier directeur hôpital Matlaboul Fawzeyni ndax moom tamit bu dul woon ak moom euh, dara du sotti waaye du mel boo nee journée mondiale rek lépp lu si war daf koy def moom ak staffam dañuy ñëw ñoom ñëpp a ngi fi jàpp ci bës bi xam ne ndamu Fawzeyni du ndamu banque de sang rek ndamu Fawzeyni la ndamu Touba la te bu ñu sañoon Touba kenn du fi faatu ndax manqué deret te yàllaa ngi ciy jàppale ñi ngi débrouiller santé yeeg ñëpp ñi ngi ñi ngi jël si deret léegi ñi ngi defar sax PFC ak concentré plaquettaire te loolu bokk ci woon jërëjëf euh, nekk kilifa si laboratoire bi ak li nga xam ne mooy banque de sang bi nekkee foofu si hôpital bi xam naa ñu fi ñëwoon tey ànd ak waa Andobes ak hôpital Fawzeyni ci journée mondiale don de bi don de sang nag maanaam wàllu maye deret dafa nekk loo xam ne lu am solo la parce que deret yi ñuy maye am na ñuy feebar tëdd hôpital moom lañ soxla am seen wér mooy may wax chaque parce que nit feebar boppam métti wala am na garab yu ko mën a faj mais ki nga xam ne feebaram deret la manqué amul lenn lu ko mën a faj loolu deret boobu noonu donc bu ko amul rek amaana fajam mën na maye jaar yoon motax nit ñi wala mëna may dret pour sauver ñoy ñi nga xam ne ñoo feebar ki nga xam mo ngi dem bay may dretam mëni si bañ am benn ñaaxare ndax dret bi yalla defal na yaram bi mo ngi fonctionné fonctionnement bo xam sa saa su ne day def renouvellement dret bi bees na ñëwaat donc soko mayé yaqku dara li nga xam moy sa wér amana sax sa wér-gu-yaram dafay gën a dafay gën ndax sa euh, système bi nga xam mooy wàllu wàllum defar deret bi dina gën a defaruwaat sa hmm. deret bi ñëwaat normalement nga maaj benn deret bi nga bu bees la hmm. da ngay gis ñoo xam ne sax may nañ ëpp ay euh, juróom fukki yoon ay plus de cinquante francs hmm. te ñu ngi ànd sa wérgu yaram di dem kon moyen na may deret lu am solo la si loolu nag ñuy ñaax ñi nga xam ne ñoo may deret wala ñi nga ñoo ragal may deret c'est normal parce que ñun ñii sax di ko wax di si liggéey avant ñu koy def dañ naan ragal mais dañ ko commencé def ba nekk di ko nga xam carrément amul benn danger te di nga sauver ay bakkan yu bari yo xam ne soxla nañ ko donc may deret lu am solo la kon def kep ko xam ne mosoo koo def da nga lay ñaax nga ñew maye ku ma sa maye tamit man nga day mayewaat saa su ne ndax bu dee goor sa ñenti weer wu ne man nga maye deret euh, sa ñetti weer di nga mëna a maye te du wañ dara sa wér yaram bu dee jigen di nga mëna a maye sa ñetti weer te du wañ dara sa wér yaram kon donc dafa maye deret lu am solo la ndax nit ñaan hôpital feebar te ñu soxla ci seen wér yaram donc ku ko mën def am kattan bi na nga ñëw euh, euh, maye maye si sa deret boobu loolu ngir nga mën a sauver ay sauver ay ay ay bakkan. saa su ngeen di wërati xibaar bu ñu saytu ko ba mu leer jëm ak luy actualité rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen abonné si daru Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence de lundi indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu TV di topal toppal information 24 heures sur 24 gaaw len gaaw abonné bés cloche bi suku ko defee membre di am lépp saa su